mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak euh, ñun ci réew mi FM rek ci émission bu ñu wax gox bi di jégalu rek ci tardement bi euh, alors tey Cheikh Ndiaye la ñuy dalal mooy maire bu commune bu Lambaye Lambaye mi ngi nekk ci département bu Bambey monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm ginnaaw ba ñu nangulee wuyu ci suñu invitation bi. jërëjëf euh, Bamba. Bemba. Mmh. Mmh. yéen su ngeen ma wooyee. ma wuyu leen rek laa war a def parce que suñu diggante yàgg na. Mhm. depuis la foire internationale de Dakar. Mhm. kon man aussi maa leen di sant di leen gërëm. Mhm. ci invitation bi ngeen ma defal. te soxlaa xam lay dox ca man. maanaam sama commune Lambaye. ak ni ma gisee aussi en tant que membre fondate de la l'APR. ni ma gisee mbir yi. alors dañuy tàmbali rek ci coronavirus bi gis nañ ni fan yi ñu ngi gën chiffres yi mi ngay gën di yokk fan yi yëpp. Euh, njiitu réew mi artu na ci ni ki démb rek ministre de la santé dégg nañ ko mesures yu ñuy waaj jël ci li nga xam ne moo jëm ci masque yeeg yeneen yi moo ne demoon nañ benn moment boo xam ne chiffre mi ngi doon wàcc léegi mi ngay yokk la sa jàngat bu njëkk. waaw jàngat bu njëkk bi moo di euh, d'abord di remercier bu baax euh, njiitu réew mi. Mhm. ci effort yi mu def ci mbiram coronavirus bi. Mhm. ndax gis ngeen bi mu tàmbalee ba léegi. Euh, noppaluwul mu ngi xalaat toujours pour def ay effort pour euh, Sénégal gépp am résilience mhm. di gërëm aussi le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mhm. sama xarit euh, def na ci liggéey bu rëy mook Mamadou Ndiaye mi nga xam ne ñoo jàngandoo aussi à la fac mhm. kon coronavirus bi nañ ko jàppee ni mu tëdd ci àddina bi rek ni mu tëdd ci àddina bi moo di pandémie la boo xam ne nii kenn mosu ko gis dans l'histoire de l'humanité loolu rek lu doy waar la parce que bàyyul benn dëkk bàyyul benn climat bàyyul benn économie te itam ni mu menacé fi mu ne nii àddina bi. Mhm. sur tous les plans dans tous les secteurs amul benn événement bu ko mës a menacé àddina bi. Mhm. du guerre mondiale du dara du la crise de 29 aux États-Unis du dara. Mhm. alors léegi nag bu ndox tuuroo an bàq des. lu ma bëgg a wax foofu moo di euh, borom réew bi nga xam ne nii moom lañ noo ko noo fi teg ci carte. dañ ko war a déggal dem na ba gisaat chiffres yi jógaat. laaj na mu tiit en tant que borom kër bu tiitee aussi nañ ko déglu mu joxoñ ñu fi fi mu bëgg ñu aw fi mu bëgg ñu aw nag du dara lu may euh, delloo buum gi ci booy booy ba maanaam takkaat masque yi di raxasu euh, soreel dandante euh, wàññi xew yi wala ñu bàyyi ko ndax wér-gu-yaram bu amul dara lu mën a am kon loolu nañ ci dellu mhm. te xam ne defaluñ ko ko moom mhm. defaluñ ko ministère de la santé kenn defalu ko kenn ku nekk sa bopp nga koy defal. kon mesures yi dañ ci war a gën a taxawaat. dañ ci war a gën a taxawaat. Mhm. waaye foofu nag su ma sañan. Mhm. xam naa ne effort bi président defat moom mënatu ko moom. Mhm. génnewaat mille milliards loolu dana. métti loolu moom président mënatu ko kenn mënatu ko. ba tax na keroog bi mu koy wax jëm ñaajo dégg naa ko bu baax mu ne euh, c'est euh, ce insupportable il a raison. parce xaalis yombul fenn ci àddina. waaye nag foofu maa ngi yóbbu ci mhm. les milieux les les secteurs sensibles mhm. monde rural bi élèves yi surtout mhm. ak euh, ñi nekk ci marché yi jox leen ko gratuitement ndax loolu day dellu soit ci suñ suñ suñ ci ñun en terme de wér-gu-yaram waaw loolu daf ñuy may ñu dugg ci commune bu Lambaye yaa ngi koy wax ñu jël ay masque école bi tijji na étudiants yaa ngi jàng élèves yu ndaw yi ñu ngi jàng itam foofu itam yow kon laata appel bi ngay lancé njiitu réew mi ndax mën nañ xaar nga def li mel li ni mel. waaw soo ko xoolee Bemba euh, bi coronavirus bi ñëwee te nekk ci digg dooleem dëgg dëgg dëgg. <laughs> Euh, ba président jël ay mesures ñu dajale xaalis pour yóbbu kit la kit <laughs> alimentaire yeeg yooyu. <laughs> booba noonu wooy bay nañ suñu waar. ni commune yëpp. man maa ngi koy xool maa ngi koy fàttaliku commandé woon naa 3000 masques yoo xam ne ni waa Lambaye ci seen bopp. artisans yi ñoo ko confectionné. Euh, gouvernement bi jox ma lu mat 2000 masques. état bi joxoon ma 2000 masques ma booleeg euh, ay lavoir def ko ci marché Lambaye defal naa ci effort daal boo xam ne nii ñëpp ko gis ñëpp ko témoigné. Mm-hmm. effort boobu nag aussi euh, bu neexee yàlla comme demagut tey sunu sunu sunu njëriñ la. Mm-hmm. dinañ ko jéemaat. Mm-hmm. mais xaw ma ak quelle hauteur euh, d'envergure mais nañ ko jéemaat bu neexee yàlla. ci commune Lambaye buñ koy dégg dañ naan commune bu xaw am koom la. li ñuy wax euh, ab dëgg la wala comme yaa ñu ko gën a xam décrire ñu commune bu Lambaye. waaw xam nga Lambaye dafa nekk nag euh, endroit boo xam ne c'est c'est très particulier mhm. soo ko xoolee Lambaye moo doonoon capital du Bawol. Mhm. xam nga capitale du Bawol du caaxaan. Mhm. ndax euh, booba kon ay Touba gi yëpp ci moom la aju. maa ngi dégg sax ñu naan Lambaye mi ngi tàmbale woon kadd kadd ballu ji ci boori Linguère ba Mbour Mbour gii ci Lambaye la bokkoon. kon loolu mu ne su dëkk mënul mel noonu ba pare ñuy fàtte loolu. Mhm. war nañoo jàpp loolu. beneen ba ca des ci mbiram Serigne Touba Lambaye dafa am lu am dafa dafa taxaw taxawaay boobu spécial ci mbiram Serigne Touba. Mhm. xam nga ne kenn mu a ci Serigne Touba te tuddoo Serigne Aliou Diouf Lambaye. Mhm. Serigne Ababacar Ndiaye Diargane Serigne Mor te ñoo ñu ñooñu Lambaye dëkk. ñoo taxawal ne tubaab bi lii nga wax duñ ko def dañuy dem Touba jaay seen bakkan na ko saaba yi defan ba tax Serigne Touba ne làmbaay coono bi ma def ba dugal ko ci lislaam ak mouridisme su ma ko doon su ma ko doon euh, su ma leen doon jox misaal mi mu mhm. ngi mel ni nga dem ba digg géej ngay laax géej xam nga mhm. laax géej lu jafe la mhm. kon Serigne Touba sonn na foofu pour jënd ceddo gi kon noonu bu nekkee ay jullit léegi bu nekkee ay murit léegi Serigne Touba tax loolu nag mooy law ba Serigne Touba euh, jàpp làmbaay nii ab ab drapeau am dra làmbaay moom Serigne Touba ko def drapeau maa ngi lay xamal ne jumaay Lambaye bokk na ci jumaay Serigne Touba tudd jumaay Lambaye bokk na ci jumaay Serigne Touba tudd en 68 la ko sëñ Abdou Lahat ñëw joxe ndigal te jumaa yi ndigal la. Mhm. nañ ko taxawal ñu taxawal ko. foofu itam maa ngi fiy profité. Mhm. di ñaan président xamal ko na ko générosité bii mu am. Mhm. bay tabaxal kër kër diine yi ay ay jumaay ak kër. maa ngi koy yëgal ne ko am na kër sëñ Touba Lambaye maa ngi koy yëgal ne ko. na jumaay Lambaye. bu ñu tabaxan depuis soixante dix xam nga loolu modèle bu yàgg la. Mhm. mi ngi soyante dal baa ngi toj. Mhm. su ko su ci président dugaloon loxoom. Mhm. lu am solo ci làmbaay lay doon. mais lu am solo ci bawol lay doon ndax làmbaay. dafa dafa dafa nekk keno. ci yéenu murit ci bawol. Euh, monsieur le maire tey kon buñ la déggee euh, làmbaay kon ñàkkul ay infrastructure suñ la déggee bu baax. waaw làmbaay nag euh, soo xoolee dafa am ñaari làmbaay. làmbaay ga nga xam ne soo demee fekk ko fa. ak làmbaay gi nga xam ne ni xam nga dañoo yàgg nekk immigrant mhm. daanaka pàkk boo gis Dakar mhm. pàkku làmbaay la waaw misaal la sax misaal la mhm. ñoom bañ toppee Serigne Touba ba dégg na Serigne Touba dafa digg la liggéey ak jaamu yàlla lañ jóg ni ñokket wut ci Ndakaarul di liggéey ku nekk sanc ba ñëwee xeebuñu dara ñu ngi ci butéel ñu ngi ci saako ñu ngi ci bant gis nga tey pàkk yi pàkk buntu piquet doy na misaal ay milliards fay génn kon ñooñu ak làmbaay la googu parce que wax dëgg yàlla euh, am nañ am nañ dara daal. Mhm. boo ko teg làmbaay gi nga xam ne nii daanaka benn la parce que ñoo fa amee jabar am fay doom ak lépp. Mhm. mais làmbaay gafa gafa ga ba fa dëkk ba. Mhm. am na luñ fa def. waaye am na lu des. damay jëkkati li des nag parce que moom a gën a ñor. li des lan la. li des moo di. te ñor na lool te ñëpp di ma ko jàmbat. Euh, autoroute à péage bi. c'est à deux kilomètres de Lambaye. fañ doon wute ji carrière bi di ko def fa ko chinois yi doon wute ji làmbaay lañ defan base mhm. yàq nañ suñ kër yëpp te làmbaay amul benn lu mu jot ci politique de RSE bu chinois yi ci autoroute à bi autoroute mhm. doon ñaan président te mu doon aussi soxla sëriñ sépp mhm. ñu yeggama ko itam ak population bi mu am benn wàccuwaay ci gol moom benn wàcc wàccuwaay rek mu jëm làmbaay donc au lieu que Lambaye di mu di ko wàcc mu di ko mu di ko yéeg a gol. ñëw Touba di ko yéeg a gol dem dem Dakar. te su boobaa day arrangé ñu bari parce que Kër Samba Kane commune bi nekk suñu ginnaaw. dina ko arrangé. dina arrangé aussi Baba Garage dina arrangé ci waa Ngaye Mexey yi nga xam ne ni dañuy jaar parce que Lambaye moo gën a jub mu nekk ci digg bi. Mhm. donc loolu. lu manqué la ñu ngi koy ñu ngi koy ñaan. Mhm. su ma la déggee mooy euh, yoon bi euh, bu njoon njëkk ku doon dem Touba noonu ngay jaar waaye léegi bon nga dem Touba te doo jaar Lambaye autoroute à péage moo ko waral ndax ñu ngi fa yëkkati dàmp nañ leen. léegi itam la nga xam ne moom moo jëm ci wàllum commerce ñi nga xam ne ñoom ñoo fa doon jaay bu nit daa dem Touba di fa jàll di taxaw kon dafa mel ni loolu yëpp naxasaay na léegi. waaw loolu daal euh, naxasaayut sax waaye dafa gën a ndax bu fekkee da ngay jógee Lambaye yéegee ji autoroute xombal wala Bambey. te nu nu tàmban loo xam ne da ngay daw deux kilomètres yéeg loolu coono la <laughs> alors euh, tali bi aussi ñu goudronné ko aussi doon na euh, bëgg-bëgg wàlla mbay a <laughs> ah, nit nag lam bëgg la xam ñaan lan man kon loolu noo koy dagaan président euh, mu bàyyi ci xel <laughs> ku boot lépp nag mënoo def lépp waaye loolu daal su xelam dawan ba jàpp làmbaay na xam ne loolu soxraas làmbaay la leneen la ca des moo di Euh, am na forage yu am doole yoo xam ne ni dañoo boot lu bari. ñu ngi commencé new doole forage Lambaye gi ma dëkk ci la bokk. lim boot ëpp na trente dëkk. te mi ngi commencé new doole ndànk-ndànk te xam nga Lambaye di gën di rëy aussi. ndax dëkk la boo xam ne day urbanisé. ndox mi. la ca des nag. Mhm. soo nu ko laajee ni wax ko maanaam la fa Macky Sall def ci lu bees. Mhm. ak man mii la ma fa def ci lu bees. acca bisimilah jukki ko. alors lan fa def ci lu bees d' abord ma tàmbalee ci sama kilifa Macky Sall. Euh, Senghor ba mu ñëwee. xam nga courant ak ndox la nit ñi gën a bëgg mhm. loolu leen defal lu may courant ak ndox xelfoo dara mhm. euh, Senghor ba mu ñëwee ba ni mu jeexal benn dëkk moo am courant mooy Lambaye Abdou bi mu ñëwee ba jeexal benn dëkk moo ba mhm. non Senghor ak benn dëkk moo am courant mooy Lambaye euh, Abdoulaye bi mu ñëwee euh, kii moo am courant Mekhe ak ceeb donc soo jëlee Senghor ak Abdou Diouf ak lay Wade ñett dëkk ñoom am courant biir commune Lambaye léegi nag Macky Sall bi mu ñëwee 2014 jàppal lii ma la wax te boo am. Mhm. Mhm. bi ñëwee 2014. Mhm. installé 2014 2012 la ñëw. ñu def élection locale 2014 man ma jël ko te man maa ànd ak moom. 2015 ak léegi ça juróomi at. Macky may na la lu mat fanweeri dëkk courant. chiffre boobu bind ko su la neexee. boo sawaree suba. soo ñëwee ma jël sama to yóbbu la mbay la dëkk yi. man du wax caaxaan du def caaxaan. fanweeri wax dëgg yàlla mosul am ci histoire Sénégal pour làmbay waxuma ne bourse familiale ya mhm. du jeex ba ma koy mujj suivre trois cent quatre-vingt quelque am na bourse familiale biir làmbay ak carte d'égalité des chances mhm. Macky Sall président Macky Sall jox nañu ambulance bu bees tàq mosul am làmbay ci président Macky Sall la làmbay masa amee ambulance Toyota bu bees tàq mhm. médicalisé ni mu ko defee ci leen ko yi ci président Macky Sall lañ goudronné lañ def euh, ra làmbay ak Bambey mosul am soo ko fi ne pour dem Lambaye ak Bambey dootoo jaar Ndangalma directement la. Mhm. ci président Macky Sall la euh, la ñu amee certains forages yoo xam ne mu mënu ma ko. moo wër mënu ma ko lim. bari na bari na léegi yow nag ci sa ay en tant que maire. alors kon. Mhm. Euh, bu doon ten man sax. Mhm. Macky Sall mi ma àndal rek. war naa tax waa Lambaye jàpp Macky Sall te bañ ma ko xoolee. alors man tam def naa. ci commune bi ci commune bi. man li ma def nag. wax dëgg yàlla mën xam nga li may def day gën a sew li Macky Sall yi def. Hmm. moo tax mënuñu su ko wax. bon waaye li wér te moo di man muré naa école Lambaye bi muré naa euh, stade Lambaye bi muré école Kër Koli Diouf. Hmm. Euh, muré euh, defaraat tool bi. Hmm. gas fa forage. léegi ñu monta pompe bi def ko pompe salaire jigéen ñu commencé liggéey ak xale yi. ndax damaa bëgg def benn politique boo xam ne ci man la jóge ma def ko exemple def ci sama loxo ba woo ci waa Sénégal na leen gis leen cest dinaa bëgg a làmbaay benn centre agroécologique boo xam nii. Mhm. maa def lépp ci sama kattan. door nga ko waaw door naa ko forage bi pare na léegi ñoo monter pompe bi. Mhm. jigéen ñi liggéey ndaw yi liggéey. Mhm. ma wan leen ne c'est possible de faire un développement endogène. à partir de ses propres moyens. avant ngay woo état. loolu xanaa su ma ko defee su ma wooyee état ak bàyyi dinañ Euh, li ma li ma li ma def dafa bari. alors mhm. courant bii. Mhm. ñoom courant la ñu xam. te mhm. defuñu duñ def différence entre président Macky Sall ak Cheikh Ndiaye maire bi. dañ maanaam monsieur le maire rek sol nañ courant. te sa président mën nga ci dara. te du ma ne sama président mënu ci dara ndax def na fi dara. su ko defee faaw jël ci sama bopp def ci courant bi. dëkk bu ñuy wax dëkk Kër Seck. bastion la boo xam ne nii bastion APR la. boobu ba léegi depuis deux mille de mille douze. defal naa leen bi soo demee ñu soo demee Njaañ. Mhm. defal naa leen courant yàggut am nañ forage te mosuñu am courant. Mhm. gasoil la doon daw ma yërëm leen ci loolu defal leen courant. Mhm. actuellement ni daru njaay ñu ngi koy monter courant. biir Lambaye gi ma dëkk ba may ñëwee Lambaye sud bi yëpp amul courant. def naa fa 97 poteaux extension Lambaye amul benn koñ bu amul courant waaye nag. pile yi lakk na. te rythme bi muy lakkee ak ni muy yàqoo. damaa dem sax ba teg ko sabotage. parce que c'est insupportable. ah bon ah <laughs> mais def naa foofu extension courant. feneen fu ci des nag. foo dégg. <laughs> du man président mack Sall la. <laughs> am na dëkk bu ñuy wax Jokkantin ay jàngkat alxuraan yu mag lañ ci cosaan bay dunde ba tey ji lañuy def am na ñenn nag ñu jóge foofu ñëw Dakar mi bariwuñu ku leen xam ci alxuraan nga leen xam maa leen jëkk a may centre de santé buy jar vingt cinq millions trente millions ñoom. wax nañ ne yaa nu jëkk dugal ci biram buur ci yow lañ jëkk a amee lu jóge ci buur mën mm-hmm. na leen nag bu leen ma ci sant sant leen borom réew mi parce que moo ma jox mm-hmm. budget bu bu tax ma mën lii ndax xam nga avant président Macky Sall euh, commune rurale yi mënuñu woon dara mm-hmm. moo ko def ay commune jox leen moyens yi pour ñu mën a def loolu kon ñoo ngi may sant ñoom di sant président Macky Sall am nañ courant aussi may naa leen machine may ceeb pan ak machine et cetera et cetera et cetera. monsieur le maire su ma la déggee kon la nga xam ne moom moo jëm ci euh, làmbaay euh, daanaka lépp gongo. Ah, lépp gongo nag xam nga amul fenn ci mm-hmm. waaw lépp gongo parce que li ma lay wax ni jàddukaay bi amagul. Mm-hmm. la ca des moo di des naa quelques dëkk yoo xam ne amuñu courant. am na lu des ah. am na lu des. Mm-hmm. Euh, ak yeneen ak yeneen. lépp gonga moom. amul amul fenn ci àddina waaye nag daanaka. moom la leenu pare noonu. ci mbiram courant ak mbiram ndox. moom léegi nu pare. suñu ñu may na ko jeex na noonu pare nañu te xool Lambaye li mu yor ci village 65 villages la yor. bëri na de waaw te ñëpp. Mhm. la extension yi ma def ci ci ci ci ci ci. Mhm. village satellite yi nga xam ne c'est pas des villages mais c'est des hameaux mhm. y a da nga ma question bi daf ma bett mais bu ñu toogan su ma la ko limalee da nga xam ne euh, ñun def nañ fa président Macky aussi def na fa lu am li ci gàttal pour tëj chapitre boobu Lambaye moom ñu nungu ko ak ñu bañ ko nungu euh, ñu wax ko ak ñu bañ ko wax ña fa xam dëgg te namp te namp dëgg di ko wax di ko doxal. di ko dund. xam nañ ne ay ak président Macky Sall. Mhm. Lambaye am na loo xam ne mosu ko am ci nguur. Mhm. te góob yi dina ko amati ci nguur itam. Mhm. ci ginnaaw ay boobu kon euh, li nga xam ne moo jëm ci élection locale yi da nga sampaat sa ndënd itam jëlaat li nga xam ne moom moo jëm ci mairie bi continuer sa liggéey. waaw jërëjëf Bamba yow dafa mel ni fi ma bëgg nga xool da faa xool ndax dama ciy profité xam nga dama nekk directeur CICES. Euh, ñu wàcce ma mm-hmm. dañ ma wàccee wàccee ñu ma sax damaa dem retraite mm-hmm. ku dem retraite da war a dem mm-hmm. may xale yi ñu ñëw président Macky Sall ci yërmandeem bàyyi ba sama retraite jot mu ne ma Cheikh demal noppalu kon kay dàqu ba moom déet xaar ah, xaar ma ñëw rek foofu leer na xam nga moom dàqu ma dafa ma ne demal nga toog parce que yegg nga ci soixante ans ma dem toog man nag di tax ma sawar sa question bi dafa bari ñoo xam ne nii dañuy yàq ndax parti bi dafa am ñu yàqlante du ma tudd kenn nag parce que am na loo xam ne bu fa ŋàññi yeggee mbaa dool la dugg da jàpp daa am lu ci rax ak gëm a di yàlla mhm. damay damay dégg ci wey nag ñu naan mhm. cheikh dafa découragé cheikh dafa kii mais man su ma découragé du ma jullit su ma découragé du ma gor suma ma découragé du ma nit maa ngi lay laaj mhm. DG yi président Macky Sall bàyyi ci seen poste pendant huit ans barewuñu de ci la ma ci la ma yàlla boole 2012 ba 2020 président Macky Sall bàyyi ma ci foir bi du ma xool sax kon loolu su ma doyul dara du ma doy ci àddina man dama nàmp ngor yàlla daf may jullit bu gëm yàlla tey nit itam jàpp naa ay nit la kon sama mbir bu yewan fii itam danaa sant président Macky Sall cant gu amatab kem te dinaa ko jàppale ba fekk muy bàyyi politique itam alors pour ma ñëw sa question. léegi foofu ma rebondir dafa am ñu jàpp ni. Euh, gestion bu xaw a bon moom moo tax ñu jëlee la fa. non non non non non la ouh loin de là. <laughs> loin de là xanaa daa am ñuy wax leneen. non non non non non non ñooñu wax ñooñu mooy affaire kii boobu rek nu mu affaire euh, mbay moomu ñu doon wax ak yooyu te loolu dem naa euh, expliquer. Mhm. mënuñoo gën a xam liggéey bi kii Cour des bi fa ñëw. Cour des comptes bi fa ñëw waxul loolu. Mhm. Cour des comptes da ne la foire a dépensé tant de millions. Mhm. ci douze semaines douze semaines xam nga douze semaines mooy mooy six foires. bien mais presse bi bind deux semaines xam nga loolu vraiment c'est la presse qui n'a pas rendu compte. <laughs> dëgg wax bi waaye mais foire moom. Mhm. may naa la nga dem. Mhm. laaj ku la neex ci foire. Mhm. ak waxtu ko bëgg a dajeeg moom. nga tax Cheikh Ndiaye fi mu fekk foire bi ak fi bàyyi foire bi nu mu demee. maa fa def huit ans yoo xam ne fo euh, salaire musu tale maa fa def huit ans yoo xam ne nii damaa damaa dégelé les voyages ñëpp man mi damaa dem bay refuser voyage ndax coopération yu bari. maa ma maa leen tàggale ak ak courant bu ñàkk damay fekk ñuy déjjati seen courant ndox mhm. ak seen courant ndox ak seen courant euh, ak ak seen ak seen ndox su ma la déggee kenn mënut a xajamal sa bilan si ah non non non non loolu moom mhm. xam nga man je suis très sincère mhm. ah je crois que je suis sincère te nu mun a dëgg man dëgg moom je suis très faible devant la vérité soo ma waxee dëgg rek ma sëgg d'accord mais foire moom xaw ma ñu ma jiitu de waaye def naa fa loo xam ne nii moom baax na te neex na ñoo fa nekk soo leen laajee xam nañ ne liggéey naa fa parce que ab ab liggéey nag passé wul ay résultats. Mhm. passé nit ñëpp avancé. Mhm. ma fekk salaire yi niveau de salaire yi douze millions ma yóbbu ko quarante millions. te di ko fay. Mhm. ci lépp ndax nekk en conformité ak politique d' emploi bu président bi. ma recruter mu jóge douze millions ma yóbbu ko quarante millions di ko fay pendant huit ans musul tardé. nit ñi avancé comme il faut. les voyages sont ont repris comme il faut ma defaraat pavillon. verre boobu lakkan yow dégg nga lakk lakk ko. Mhm. maa ko defaraat sur fonds propres cent cinquante millions. Mhm. c' est pas rien la fois ne reçoit rien de l' millions demal demal sama bopp. Mhm. pendant huit ans. partenariat gis nga ni mel. foire bu dikk sous mon gis nga ni daan tàkkee. lépp lépp lépp lépp dox. ragaloo audit. non dañ maa audit ba pare. compris dañ maa audit ba pare. Euh, cour des comptes moo fa jaar. Mhm. def ay recommandation lépp ay recommandation lépp. Mhm. mais gestion nag sëñ bi. Mhm. il faut ñu am lu ñu la lu ñu la kii. lu ñu la dara. waaye moom en âme conscience. CICES maa ngi lay xamal ne CICES lu ñuy lekk nekku fa. lu ñuy lekk nekkut CICES ku fa jaar xam ko. boo ko daanee ak coow li nag. dag naa woo oh, ay milliards yi fa nekk. waaye foire bi na la CICES moo koy defal boppam sur crédit fournisseur. su paree fay lépp lu muy desee dara. yor naa fa oto huit ans huit ans laa yor oto sama oto oto boobu ba ma ñëwee bi oto laa fekk mu daw trois ans ma yor ko huit ans ça fait onze ans ban DG moo accepté dawal oto onze ans daa dem mujj dafa dem mujj ba amatul climatiseur amatul dara ba may génn nii laa ne gaañee xam naa ne lee ma dem de waaye du tee ma jënd oto bu bees tàq teg fi jëndal sama bopp oto bu bees tàq jëndal PCA oto bu bees tàq soo demee foire gis ko fi mu ne nii dama ko jënd deux mois rek ñu di daal di dem mhm. kon man wax dëgg yàlla. Mhm. man damaa suqali foire bi dëgg dëgg dëgg dëgg. ci lu yàlla attan nag ci dogalu bi yàlla. am na solo waaw 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 da ngay sampaat sa ndënd ke toddoo ci question boobu ba léegi de. waaw très bien waaw danoo <laughs> danoo xuus ci biir bi ba ba xaw a kii. dafa mhm. xaw a perdre fil bi. Mhm. Euh, mais su ma samput sama ndënd lu may samp. am nga bilan man man man bilan moom am naa ko dëgg moom. Mhm. Sénégal nag dañuy yegg foo xam ne bilan du fal kenn. Mhm. ndax wàcceel ba toog dafay bari. ndax gis nga président Macky Sall li mu fi def kenn mësu ko fee def mais gis nga coow li mu bëree. Mhm. danaa samp sama dënd parce que am naa bilan bi. nattu leen ñoom itam seet ba xam bilan tax ñu jàppale nit wala bakkan tax ñu jàppale nit dinaa samp man ndax bilan. dinaa samp ndax du ma ànd ak président Macky Sall ca opposition ba léegi mu defal ma teraanga bi ma defal may teggi tànk. loolu mënta nekk dafa mënta nekk damay ànd ak président Macky Sall fu mu jëm ci àddina ci politique ma ànd ak moom moo ma bàyyi ci politique nag. moom Macky Sall. maa la xamal nii suy bàyyi may bàyyi te loolu moom suñu suñu kanam jëm ne ko suñu ginnaaw président Macky Sall moo ma bàyyi ci hmm. politique. waaye maa ngi lay xamal ne tànk mi ngi bëgg. Hmm. su geestoo dina ma gis. waaw kon dinaa sampat sama ndënd te gëm naa ne bu ma sampee sama ndënd dinaa gañee làmbaay dama ko gañee wat yéen da ngeen ne euh, dañ li ni mel dañ koy choisir président moom mooy xool coordonnateur bi wala mu samp ko wax kenn ni mu dem kon bu ñu la joxoñee wala ñu ñàkk laa joxoñ di nga sampaat sa nënd. waaw dama am yaakaar ci nag réforme yooyu réforme yu baax la man d'accord naa ci réforme yi ah. parce que wax dëgg yàlla peuple soo nee démocratie ngay doxal. Mhm. te it peuple di mu nawle euh, mbir mi lu mu gën a leer rek mu gën nañ daa def bu njëkk yoon kenn du ko contre parce que suñ ko xasee def yoon la. Mhm. waaye nag liñ nan dem élection woteel leen nu ñu woteel ñu woteel coalition bi wala parti bi ba ca fin ba te xamoo kuy nekk maire loolu wax dëgg yàlla am na lu ko gën. Hmm. li ñu def ñëpp gën. maanaam ca départ ba rek fësal sa bopp. ca départ ba ñu ne ki nekk ci kaw mooy doon seen maire yéen a nii kat dem leen wote mais ki nekk ci bopp bi mooy doon mu nekk maire bi. Hmm. ku doy nga wote ku doy doo wote. am na solo ñàkk élection du dee ñàkk élection du c'est pas la fin du monde. Hmm. donc man ànd naa ci réforme bi. te gëm naa ne làmbaay. ci la ma xam ci président Macky Sall. Mhm. bu dañut làmbaay bu ñuy teg man nañuy teg ma nekk ma jiite ma jiite coalition bi. loolu am na solo def naa bilan bi mhm. président Macky def na bilan bi. Mhm. te it naa ko parce que membre membre fondateur de l'APR la. ñi ko je ne mais membre fondateur de l'APR. lu tax loolu. waaw dañ ci dañ ci dem ci ci question certaine question. léegi monsieur le maire léegi taxawal nañ gouvernement bu yees bi. Euh, euh, Bambey département Bambey dégguñu foofu ministre à part Ngom. Euh, lan moo si sa jàngal bu njëkk ak ñëw Idrissa sekk ci euh, ak àndandoog ak Macky Sall waaw ci bu njëkk bi maanaam Bambey ñàkk ministre euh, man nag am na d'abord maa ngi saluer sama maa ngi nuyu sama sama xarit sama doomu ndey moor Mor mm-hmm. Mm-hmm. nit la koo xam ne ni mi ngi def kéem kattanam ci département bi ak fa mu dëkk mm-hmm. te loolu aussi man naa ko témoigner alors man nag du ma ànd ak nit di ko fakkastal président Macky la xam na nit ñi xam nañ ñu koy liggéeyal bu jàppee ne Bambey war naa ministre Bambey dina ministre bu jàppee ne warta ministre warta ministre man noonu laa jàppee mbir yi man nag euh, xam naa dinaa la xaw a jaaxal tuuti. Mm-hmm. ndax euh, dama du dox ci tànk yi politique yi dox politiciens yu bari dox. waaw ndax man damay jubal rek bañ a gestu lu ñëw rek dajeeg man nu nu continuer. Mm-hmm. waaw Bambey am ministre ak mu ñàkk ministre soo man ministre day a waaye bu ko ñàkk itam du tax ma yuuxu du tax ma saaga gëj naa ministre depuis mort ba mu nekkee ministre waaw daa war a mhm. jàpp naa daa war a demee noonu rek daa war a demee noonu rek mhm. waaw parce que Dame Diop mi ñu def ministre mais Dame Diop même yaayoon na ministre Dame Diop membre fondateur la de de l'APR noo bokk nekk ci directoire APR man ci directoire APR la bokk maag Dame Dame Diop moomu kon Dame Diop yóbbaale na ñëpp. Mhm. yóbbaale na ma yóbbaale na Mor Ngom yóbbaale na Moustapha Cissé Lo yóbbaale na département Bambey euh, région de Diourbel gépp Mhm. Dame Diop mooy suñu ministre ñun waaw. amu leen ci benn problème. ñu jël keneen teg voilà non non wax dëgg yàlla mais. Mhm. xam su fekkee département bu nekk da nga naan amu ministre. Mhm. loolu kon dañuy bëgg a jaaxal président Macky Sall parce que président Macky lépp sénégalais dañu ko ne résultat lañ laaj. waaw soo nee résultat la laaj kay. nga laaj kay. ñu jël kooku auditeur boobu salaamaaleykum. maaleykum salaam. salaamaaleykum ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar bu baax. Abdou Lahad Diouf la. Abdou Lahad Diouf euh, ci deux minutes Abdou Lahad lan nga ñu mën a wax tey ci monsieur le maire mi toog fii tey. ah le maire bi ma ko nuyoo di ko jaar di ko maagal di ko jox wàcc waayam bu baax a baax di ko ñaanal jàmm bi sax daal. Mhm. ma ne leen rek moo nekkoon sam problème mooy tëli boo xam ne xooxu na lamp yoo xam ne fay na ndox moo xam ne bari na lu mu fay ñàkk. te su ma sañoon loolu lépp du am. Mhm. loolu laa koy laa ba pare lan moo ciy xalaatam. Mhm. parce que yi maye ci dëkk yi ñu wër yëpp yaakaar naa ne ñun tamit waroon nañ cee mën a am donte suñu làmp tàkku mhm. war nañ cee mën a am la ñun waa làmbaay tamit mhm. ak lan jërëjëf waaw mhm. dinañ ci jellu si après incha allah mais ñu continuer ci lancé bi euh, ndax da nga jàpp ni APR est-ce que amul ay problème difficulté seen seen département yéen ah man day xaw xaw xaw ma ci difficulté boo am na yoo xam ne nag bon du ñàkk ci parti. maanaam programmation bi daal. Euh, waaw du ñàkk ci parti ay croque en jambe gi demee noonu ci biir parti bi. Mhm. Euh, su ma nee amut waxuma liy am. li am mooy am na. tendance waaye nag waaw voilà mais luñ mën a muñ la en tout cas man personnellement lu ma a muñ la. Mhm. ndax euh, nit du def lu ma naqari man. waaw tant que yëkkatoo sa loxo daal teg ko sama jëmm ji. Mhm. wax dëgg yàlla loo def rek mën naa ko muñ. mais nag loolu am na fa. problème de euh, coordination mais gëmu ne loolu gëmu ne loolu. Mhm. moo nekk à la base que Macky Sall bañ fa choisir ministre. mais département yëpp su ñoon dañuy am ministre kon kon ko du dem. Mhm. ma ñëwaat ci idée bi dañuy laaj président Macky Sall résultat. Mhm. dañ ko bàyyi mu seet nu muy def ba am résultat bi mais dama lay laaj résultat ba pare. naa la war ngaa jël fi ministre war ngaa jël fi ministre war ngaa jël fi ministre waaw fa nga ko ne jël fa ministre su fekkee ministre boobu amul dara moo fa nekk moo fa dëkk nag buñ ko mégg buñ ko méngalee ak y Matam kon euh, nañ Podor ak ñooñ am nañ ñetti ministre waaw ba tey rek dama mm-hmm. xam nga mm-hmm. mm-hmm. moom la Sénégal gépp bokk mooy li nga xam ne bu tàbbee ñëpp mëcc waaw résultat boobu dañ koy bàyyi mu seet ni muy def ba am bi dañ koy sàkkalawu màngoo bu ko nee lii ngay sànni aw xeer ngay yor wala aw doj ngay yor wala uh, aw kii bant ngay yor mm-hmm. nañ ko bàyyi rek bu fekkee day jël quarante minutes aussi euh, Tambacounda yéen ko bàyyi mu jël quarante minutes Tambacounda mm-hmm. yéen résultat lañ ko laaj mm-hmm. waaye nag man vraiment mas dama mas a contre man jigéen dugg na góor dugg na il faut jigéen dugg non jigéen bu compétente war na dugg bu compétente warul dugg région bii am na région bi daa war a am loolu franchement c'est vrai que la politique ne peut pas fermer les yeux sur certaines considérations sociales et culturelles waaye nag faut pas en exagérer euh, li li mat sàmm dëgg dëgg dëgg mooy résultat bi mhm. waaw ku def résultat dëgg daal te nit ñi doxal aqulay taala bañ a doxal bakkan mhm. war ngaa am li nga bëgg Idrissa Seck itam ñëw fekk si leen euh, surprise la ci yéen wala bettu leen nekk leen bett waaw d' abord maa ngi lay xamal ne làmbaay comme ni ma la waxoon léegi ne làmbaay lu particulier la. Mhm. làmbaay ni mu nekkee euh, centre de gravité géographique bu Bambey. Mhm. noonu la nekkee centre de gravité culturel bu Bambey. si tu soutiens Lambaye tu soutiens le département. Mmh. culturellement et géographiquement. bon euh, Lambaye parti yi ngay dégg yëpp Lambaye dañu juddoo. xaw ma mas nga xam loolu xaw ma su ko xam. loolu de di oh si si si. Mhm. fa la PDS mhm. pour daal di def tâche d'huile ci département bi. Mhm. fa la PS plus ou moins ponte PS yu mu jëkk yëpp làmba lañ jëkk. APR fa la ak man et cetera et cetera et cetera donc Lambaye mooy territoire bi commune bi gën a difficile sur le plan politique ci département Bambey ndax dafa bari dafa ëmb cosaan. ëmb ëmb diine ba pare parti yëpp fa lañ juddoo alors mbiram Idrissa Seck nag man li ma ci mën a wax du sori parce que wax naa la ne la. Mhm. Euh, actualité politique li ma ko suivre lu néew la. dina la bett nag li ma nekk maire. Mhm. Euh, nekkan DG. ba pare awma culture politique j'ai pas de culture politique fii ne ni mosuma xam Idrissa Seck ci lu mu nekk sax waaye su fekkee da ma maa laaj pour ma juger li mu def nii. Mhm. damaa jàpp ne dama koy saluer d'abord dama ciy kontaan li tax ma ciy kontaan moo président Macky Sall d' accord na ci jox na ko loxo comme d' accord na ci jox na ko loxo te ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ànd ak seen xel ba tey jii. Mhm. ah waaye mag kay xanaa du jël loxoom dugal ko foo xam ne da koy gaañ muy Idriss Seck di président Macky Sall Idriss Seck moom defe naa du dugal du jël loxoom di dugal fu koy gaañ rawatina nag ki yor lenge yi ki yor lenge yi itam di dugal loxoom fu koy gaañ ak nuñ ko mën de layee man lay lay ba c'est pas important pour man politique ni ma ci doxee mooy li ngay wax man wax dëgg yàlla. Euh, intéressé wu loolu. waaw waaw waaw waaw man ëllëg lay xool rek tey ji nga xam ne maitrise naa ko. Mhm. ëllëg ma ma boole xool ba xam waaye daal jàpp naa ne ñëw gi Idriss Seck ñëw jërut nit ñi euh, perte du temps ki naa moo waxan waxeet moo defan lii nangam nag politique noonu la bindoo nit doxal na ci loxo yi du jikkoom sax. Mhm. koo gis ci politique ma ngay doxal loxo yi du jikkoom jikkoy politique lay doxal seen jikko yi ñu ci politique bokkut seen seen jikko dëgg dëgg dëgg man nangoo naa ci nit mu ne am na président bu nekkee Sénégal nekkatu fi nit ñoom moo gën a humain ci àddina moo gën a baax ci àddina te pourtant ci politique demut noonu. donc nit li muy def ci politique. Mhm. du mën naa bañ doon jikkoom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. mais politique ko laaj. politique nag day am la mu laaj tey am lu mu laaj suba am lu mu laaj ginnaaw suba. politique c'est changeant moo demee noonu. alors président Macky Sall mii wax ma jox la exemple. Mhm. président Macky Sall bi ñu wax naa ñàngal. mais yàlla ko bind fayda ak ñàkk bari ñàkk bari ree parce que man je le connais depuis la fac on a fait tronc commun. ensemble ensemble à la fac de fac de sciences. Mhm. mais Macky Sall bi mu ko xamee mu nekk étudiant nii noonu. pas ferme mais c'est un sérieux il sérieux plus sérieux Macky Sall il est sérieux c'est pas un mhm. gars à rire comme ça à tout bout de champ etc etc mhm. il est comme ça mhm. donc pour me pour me résumer Idrissa Seck li mu def sant naa ko ci bu baax ndax jox na loxo nungu na loxo bu ko Macky Sall tàllal wala boog Macky Sall nungu na loxo moom bu mu ko tàllal li ñu gis daal suñuy bët moo di ànd nañ léegi. Mhm. ànd boobu nag yal na jig Sénégal. Mhm. yal na leen jig ñoom ñaar ñëpp. ok léegi monsieur le maire euh, dafa am ay collectif temps yi collectif bi nga xam ni dañu ne ki nga xam ni moom moo di Mahmoud Saleh njiitu réew mi moom moo ko nommé amul sa lijaasa IRHA ñu def ko directeur cabinet ñu ci bari nag am nañ sax ñuy ruumandaat ne déposé nañ ab bataaxal cour suprême ngir ñu annuler li ni mel. noo gisee loolu njuumte la wala njiitu réew mi xam na li mu def. waaw man de soo ma ko nungaloon nga may ma ma sëgg question boobu. ndax sama xam te ci bëriwut. Mhm. xaw ma ci dara. Mhm. te it nit ki lu mu xamut nag du ci dugg. ñetteelu mandat bi am nga ci position. ñetteelu mandat bi foofu ma am ci lu ma xalaat d' abord damay jëkk a weddi ñu naa président Macky Sall dafa wax biir APR ne bu ci kenn wax loolu président Macky Sall du ko def niveau de démocratie passé na foofu. ok euh, ñu ko wax boobu ba léegi te amu ci xalaat. acca lan moo si sax xalaat bi moo di ànd nga ci yow. xalaat bi moo di. Mhm. xalaat bi moo di lu tax nit ñi naan ñetteelu mandat lu tax ñu tudd ko ñetteelu mandat lu tax tudduñu ko ñaareelu mandat. yow ñaareelu mandat nga koy tuddee. je m'explique. Mhm. saa bu ñu jógee rek naan dañ naan ñetteelu mandat mais mën nañ ko tuddee ñaareelu mandat li tax lu ma wax loolu moo di soo demee ci texte yi ci constitution bi. Mhm. da ngay jël la dernière phrase bi tëj. la durée du mandat est de cinq ans. attention la durée du mandat est de. est de cinq ans cinq ans oui mais yow def nga mathématique mathématique dañuy dañuy définir benn domaine de définition. Hmm. soo ko développé. loolu mooy domaine de définition ab wax bi man dama am problème ak justice yi parce que du suñ bindee ba pare lañ jàng man bokkut ak li ma jàng mais en tant que scientifique je comprends les mots la charge des mots je les comprends bu ñu waxee nul ne peut faire consécutifs, plus de deux mandats consécutifs. Mais la durée du mandat est de cinq ans. Macky Sall n'a pas encore fait deux mandats de cinq ans consécutifs. donc waruñu ko wooyee troisième mandat. te loo ko tuddee. deuxième mandat lañ ko war a wooyee te deuxième mandat la sur le papier sur dans la constitution. dans la constitution constitution may na Macky def mu defaat candidature. yow de loolu yow Cheikh Omar Anne rek ko fi wax de. non man Cheikh Omar Anne sax man xaw fu mu jëlee ay raison mais man di laa ma sa gëm dama li nga xam ne nii moom laa gëm man liñ bind mu leer nañ président Macky Sall n'a pas encore fait deux mandats de cinq ans consécutifs defagu ko benn mandat de cinq ans la defagul kon 2024 war naa mën a présenter waat bu buñ ci yeggee. moral est-ce que nangu na ko. non xaar xam nga bi la politique nag ay moral ak yooyu beneen affaire la beneen chapitre maa ngi dégg ñu koy wax mais faut pas de des choux et des carottes bon ma ma développé. <laughs> buñ ci yeggee ñu ne ko mën ngaa mën ngaa présenter wu. président Macky Sall même bu bëggutu ne présidente wu dañuy taxaw ne ko da ngay présidente wu. ah bon oui parce que parce que moom moom parti bi te man gisuma ci parti bi koo xam ne nii man na ko remplacer parce que déjà am na avance bu mu def bu ko sénégalais yi falewaat keneen koo fi indi ku bees la nekk sénégalais yi day neex attaqué waaye président li Macky Sall li mu fi def ci bilan def ko ci kër diine yi def ko ci doomu aadama yi def ko ci monde rural bi électrification am na avance boo xam ne ñun ñëpp moo nu tane ci candidature su boobaa. ku yëkkati loxo APR di sellal té téeli sa loxo président Macky Sall yëkkati loxoom te su boobaa Macky par force day dem. ñi dàq nag da nga jàpp ni am na. ku ci non non ñi ñu dàq naa ci ñëw. président Macky a mu bëgg a mu bëgg a wax leneen lu may présenté. Mhm. ñun noo koy forcer par force. mu kii parce que duñ bàyyi suñu bopp si duñ bàyyi suñu bopp yu duñ gala mooy suñu leader depuis depuis mhm. moo ma woo dama kaay duñ toog ba heure bii affaire sorx sorxo tax mu naa du ma présenté loi may na ko parce que dafa ko fi deux plus de deux mandats consécutifs de cinq ans de cinq ans je je veux être précis de mhm. cinq ans kon mi ngi ci premier premier mandat la def deuxième mandat moo ñëw 2024 suñu ca yeggee itam amul kenn ci APR ku war a mën a tàllal loxo dekk un candidat valable man gisuma ko ci APR njiitu réew mi rek njiito réew moo fi tane kon président Macky Sall xaw ma dina ma dégg xaw ma du ma dégg waaye su yeboo waajal ko na ko préparé. 2024 hmm. dina dem par force élection xaw ma dem am nag xaw ma ñàkk waaye dina dem par force élection. li nga wax nii moom bu ko xaw a jaaxal ñoo xam ñoo xam xam nga dama laaj Cheikh man Cheikh Dakar laa tudd dëkk Lambaye da nga maa laaj sama sama sama sama opinion sama opinion laa la wax. nee naa la président te loolu ngay défendre na loolu laay défendre. te di nga ko wër de waxee ko. maa ngi wàcc yàlla na lii la gëm man li ma wax nii teguma ko ci bakkan dama dama ci ay texte la jëkk évoqué dama ne la nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs le mandat est de cinq ans mais mathématiquement il n'a pas encore fait plus de deux mandats consécutifs de, de cinq ans. niñ dàq nag. alors kon loolu laa bëgg président Macky Sall xam ko parce que président Macky Sall. Mhm. man naa am du sóoraale loolu. sama classe gi nekkat ay membres fondateurs sonn ci ba dee. Mhm. te bari lool ci parti bi. Mhm. te ñu ci bari gisaguñ seen bopp ci biir itam ndax président bi dafa def la patrie avant le parti. Mhm. duñ ko bàyyi deux mille vingt pour de question ay bruit de nangam nangam mun naa du ma dem. dañ koy forcer mu dem man pas APR suma ci un candidat valable bu mën a remplacer Macky Sall mooy sama conviction te xam nga man du ma politicien man nee naa la Macky Sall moo bàyyi ci politique buy bàyyi politique muy bàyyi politique politique man leneen laa xalaat waaw jaay xam-xam man laa gëm te man na ma jaay xam-xam. am na ay kàngam yu bari yi nga xam ni déjjati nañ leen Omar euh, Youm euh, Aminata Touré. Euh, ki nga xam ni moo di Amadou Ba ak ñeneen ñi nga xam ni génne nañ leen dugal ñeneen ñi nekkoon ci l'opposition bi ku ci mel ni Omar Sarr tey est-ce que Macky Sall di néew dooleem partem Macky Sall euh, man nag pourtant gisuma ko noonu dafa am ku ma laaj temps yële na ma mais Cheikh comme ni may laajee nii parce que day defee ne xam naa ci dara yow noo gisee. génne bi ñu génne pont yooyu ak réaction Mimi Touré. Mhm. parce que moom da cee am benn taxawaay bu xaw a bu xaw a particulier. seetlu nga ko. waaw loolu aussi su ma sañoon du defee du demee noonu. Mhm. du ko defee noonu. Euh, d'abord d'abord génne bi génne bi benn sénégalais rawatina benn membre parti bi. Mhm. waru ko waru ci am un jugement de valeur ndax naa la président moo xam la muy def. te ñooñu aussi soo ko xoolee man nee naa la membre fondateur de l'APR laa mhm. kooku Macky Sall mënu ko weddi Sall mënu ko weddi kenn mënu ko weddi ci ñoom xamuñu ma nag peuple bi xamuma mais ñoom xam nañ ma nee naa la parti bi ku ci nekkaan xam naa la parti bi xaw ma ci ne Aly Ngouille ba muy relais sama kanam bi xaw ma ci ne Amadou Ba parti bi xaw ma ci Mimi Touré ci yi laa ko xam Mimi Touré nag noo jàngandoo li savant ba xamal naa ko booba mhm. parti bi xaw ma ci yéen Omar man naa ma nga ca woon nag parce que mënu maa xam ñëpp mhm. mais xaw ma ci yéen Omar Youm et cetera et cetera et cetera kon ñooñu suñ dee pont dañ di pont ci teraanga bi leen Macky Sall jox bañ am xaalis ba kawe ba nit ñi xam leen man mii ca départ ba soo Macky Sall defan tegan fa mu leen teg mhm. kon ñu xam ma xam bu gën a garaaw boobu ndax kon Touba gépp nañ ànd ak man dégg wax bi mhm. kon pont yooyu ñu leen di wooyee ay pont la yoo xam ne nii c'est grâce à Macky Sall ñu nekk pont leneen la jël seen seen réaction man neexuma. Mhm. ndax lu tax neexuma moo di. ñu jël kii salaamaaleykum. salaamaaleykum. sëñ bi def ñu ngi sant alhamdulilah. sëñ bi yaa na waa ñu ngi sant bu baax xam naa tur bi ak foo ñu woowee. man El Hadj laa tudd maa ngi dëkk Lambaye nekk directeur de cabinet maire Cheikh Ndiaye. ok El ci tënk ñaari minute hmm? lan nga ñu mën a wax ci maire ak uh, li mu def fële ci Lambaye. lan nga ñu mën a wax ci monsieur le maire ak mu fa def ci Lambaye tey. waaw monsieur le maire Cheikh Ndiaye. Mhm. maa ngi koy nuyu d' abord. ci tënk rek. Mhm. Mhm. waaw ci tënk. maanaam di tàmbali. di wax ne monsieur le maire Cheikh Ndiaye bañ ko falee bañ ko falagul sax commencé naa def mais biñ ko falee la tàmbali maanaam problème yi ma fekkoon ci biir mairie bi yëpp. daanaka mu réglé ko. ndax euh, forage bi bi mu ñëwee forage bi doxutoon. ndax forage bi dafa amoon man ba am ay bor waa Sénégal di leen coupé. Mhm. bi mu ñëwee xaalisam ci boppam la jël booba toogagu pex ci fauteuil bi. Mhm. xaalisam la jël boo def forage bi yëpp fay ko commencé indi benn comité de gestion boo xam ne mooy géré forage bi boo fi nekk tubarkalla amoon nañ bi bi ba aquatique bi jël. Mhm. dem nañ ba am un bénéfice de sept millions cinq cent mille. bon loolu benn la. bi bi ci def mooy groupement féminin dañoo demoon ba ñu leen di tabaxal. benn magasin. Mhm. magasin boobu apport bi moom ci xaalisam la jël trois millions sept cent mille joxe pour que ñu tabaxal femmes yi magasin bi pour que ñu mën a liggéey maanaam ci seen sàq yi. Mhm. beneen bi mooy bi mu ñëwee. Mhm. dafa rénover mairie bi. fi nekk mairie bi boo fi duggee doo xam ndax lii mairie la. wala place de l'indépendance la. mairie bi ni mu rafetee trois quarts macha allah. vraiment yaakaar naa ne mairie ci Sénégal gépp je crois que kenn taxawuñ ci mairie. jël na tamit ay doomi làmbaay mhm. lu mat fukki nit dugal leen ci mairie bi mhm. ñuy liggéey mu leen di fay par weer li mu def aussi ci affaire électricité bi mhm. appuyé na maanaam euh, def na ay démarches ba nga xam ne nii lu mat fanweeri dëkk ak juróom-ñeent fi nekk nii am nañ électricité te dañ fiy ñëw booba ñetti dëkk ñetti dëkk ñoo am électricité fii ci làmbaay bi ci des mooy am na benn dëkk boo xam ne nii ma nga nekk ci neuf kilomètres wala dix kilomètres de Lambaye ñooñu mësu ñoo jariñu ci falak waa lambay mais bi mu ñëwee la jël benn case de boo xam ne ni d'une valeur de vingt cinq millions alors ak équipement boo xam ne ni cinq millions la mu def ko ci dëkk boobu nga xam ne ni seeni seeni jigéen dañ daan jël ay charrette di ñëw dispensaire lambay am na ci ñoo xam ne sax ci yoonu lañ doon accoucher mhm. beneen bi mooy am na ay mur ay école yoo xam ne nii. ñu tëjee ko foofu leen. Mhm. Mhm. ñu tëjee ko foofu. ah. ma ne ñu tëjee ko foofu. waaw boo xam ne yeneen ak yeneen ak yeneen. bëri na. vraiment bari na dëgg jërëjëf jërëjëf. ñu koy sant di ko gërëm bu baax maire dinañ la bàyyi rek trois minutes le temps ñu terminer boobu. pont yooyu nga ne njiitu réew mi moo leen defar ba muñ leen ñu leen di wax tey. très donc boo nekkoon seen place yi tam di nga ràññeek loolu mais est-ce que tam nekkul di nasaxal partem APR. waaw euh, avant may dama dama dama la waxaat ñaari poñ la. Mhm. poñ euh, mbiram pont. Mhm. ak mbiram réaction. Mhm. pare naa ci pont yi. ku ci nekk pont. président Macky Sall tax nekk pont. bon su ma defoon pont ma nekk pont. alors. réaction yi téléphone baa ngi ñëw su ma sañoon réaction yi du am. bis bisimilah. salaamaaleykum. asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi leen di jaare di la delloo ziar bu baax tur bi ak foo ñu woowee man la Maram Mbow Maram Mbow di wootee Lambaye Maram bisimilah Euh, nekk acteur communautaire di intervenir foofu ci commune bi. Mhm. waaw ñu leen di jaar bu baax tey rafetlu kàddu bi tey lu tey waxtaan ni muy déroulé. di nuyu auditeurs yi di nuyu euh, monsieur le maire euh, Cheikh Ndiaye ñu koy woowee seex Dakar. Mhm. ñëpp xam ko Sénégal. Mhm. di xamal rek comme ni nga ko waxee parce que da nga rebondir ci ci Cheikh. defe naa ne te l'homme qui a révolutionné l'homme qui a révolutionné ci loolu ma lay wax noonu li ko firndeel moom. mooy pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu marché a assister passation de service boo xam ne nii déjà tout le personnel di CICES ñoom ñëpp ñu ngi jooy loolu defe naa lu jafe loo xam ne nii mooy firndeel nekk kii am na lu mu fi def am na lu mu fi fekk mais bu leet am na loo xam ne def na fi loo xam ne c'est sur tous les plans kon kooku c'est important. jërëjëf beneen bi mooy socialement foofu nga xam ne yàlla def na mu nekk doomu làmbaay yàgg fa. def fa lu tolloog huit mm-hmm. Mm-hmm. amul benn foire boo xam ne am na sa jëlut des centaines des de jeunes yoo xam ne ñu ngi jóge ci cinquante deux villages ak amoo yépp fu mm-hmm. ci nekk mu jël fa bu dee ñaar bu dee ñett nga ñëw nekk ci boo fay jógee lum dee dee dinañ jël cinquante mille mbaa cent mille francs dugal la sa poche kon kooku jariñal na askan kon kooku ñun aussi ñu ngi koy jooy. bu loolu passé lii nga xam ne mooy làmbaay bi nga xam ne fi leen dëkk nga xam ne il est le maire mm-hmm. dëgg la kenn matalul lépp mais moom li nga xam ne ni moom la fi fekk mm-hmm. defe naa ne fi mu ko jëlee fi mu ko fekk fi mu ko jëlee defe naa ne ñun ñëpp gis nañ ko parce que on est des jeunes ñun mm-hmm. te aussi làmbaay dañ faa juddu yaroo fa màgge fa ñu dolli ca ban jànge université ñëw bind fa suñu mémoire kon ku tax ñuy taxaw naa la ñuy def nga ko rek. parce que mm-hmm. doon ko rek parce que kenn. soxalul mm-hmm. soxalul soxalul lekk. Mm-hmm. kenn joxulul naan. am pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. parce que dafa am loo xam ne ñuy def mu ne ça à cœur. comme que ñun dañuy intervenir dans le commune ci protection de l'enfant. et pour la première fois je peux vous dire que même boo jëlee au niveau national. amul benn commune boo xam ne sa maire jël na ko. voter budget allouer un montant X pour la protection de la de l' enfant tey kon important te loolu moo tax tey mhm. ñu mën a activité sensibiliser communauté ci yenn protect ci yenn thématique yi mhm. ci protection de l' enfant mhm. et tout ce qui est en rapport avec ses droits et ses devoirs muy loo xam ne nii tamit ay mbir yoo xam ni deltoon na ko ginnaaw lool ci gox bi mhm. te lool maanaam mën nañ ko suti ay facteurs yoo xam ne de sous développement muy les mariages précoces kon kooku booy ñëw di sensibiliser communauté yi uh-huh. yaay yi uh-huh. papa yi suñ bàjjan yi ak suñ maam yi naa il faut mu jóge fi parce que bu fi jógu mën na deltool ginnaaw communauté leen kon kooku Cheikh Ndiaye vraiment ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal te di leen xamal ne kat a ah, président kat comme ni ñu ko waxee rek mhm. dara du doy waaye tamit suñ ko amal moom ñu jël ko des terres jox ko responsable bu rëy mhm. ay ministère bu boobaa làmbaay liñ ci bëgg ñëpp boobaa mën nañu ko am te ñu jàpp nag ne làmbaay ci boppam jërëjëf boo mhm. gisee autorité bi li muy def ak responsable ak président ak l' état a comprendre mais sama kër man man maaram bopp man maa war a mën a ñëw tabax ko ba mu rafet ma peinture ko. àndandir hmm. ko ba ku ñëwee ba ku ku nekk boo jógee bi réew maa nga jóge fenn boo ñëwee ne làmbaay rafet na. mais mais du Cheikh Ndiaye moom may defal ko <laughs> defaral ma saabar ko ma defaral ma dem. merci merci loolu daal laa lu ma ci sànni. am na solo tey jéegul tey leen wax ne moom avec Cheikh Ndiaye je pense que on garde am na solo am na solo ñu jeexal ci réaction yi comme que ñu bàyyi la nga tàggatoo ak waa làmbaay yëpp. voilà réaction yi ba tey euh, maanaam ñun ñu génne mm-hmm. réaction yi la enfin euh, ku ci am réaction bu violente mhm. rafetlu mu ko mhm. euh, réaction boobu nag euh, ci kenn laa ko gis mhm. ci sama xarit Mimi loo koy woo wax naa la wax naa la noonu jàngaloo di ma sañan képp ko xam ne nii da bokk ci ñooñu ñooñu ñuy wooyee pont di la président Macky Sall def bu mu la naqari dafa am ku ma laaj ne ma yow noo gisee réaction gars yi ma ne ko ah gars yi di seen réaction am na ci ku ci leer la réaction muy Mimi mais ñi ci des day joxe gun nañ bopp xaw ma nag dinañ joxe ay noppam de ca kanam. <laughs> waaye de baaxaan nañu fàttali leen na leen. Mhm. am nañ privilège boo xam ne nii ñëpp amuñu ko ci APR. ndax bari na membre fondateur yoo xam ni xaaju ñoo yegg fii ñu yegg man mi ci la bokk te mën naa la ci limal ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. ñoo xam ne ba muy metti ba ñuy dem jóge directoire su ñibbi di jël kaar Ndiaga Ndiaye lañ ci nekkan ba tey jii. mën mhm. a waaja Euh, dañoo war a inspiré wu ci ànd ab Moussa yonti yàlla Moussa ak Xodar. defe naa ànd boobu dégg nga ko. yonti yàlla Moussa moo sàkk ko ànd ak Xodar. Xodar na ko ah dafa ngay nañ ma àndam mën na ko mën noo ànd Xodar na ko ànd bi da amut laaj. xam nga loolu kon wane na ne kilifa du ngeen ànd nga di ko sëkkamtal di ko lu mu def nga bëgg a xam loolu lan la. Mm-hmm. mais yow dégg nga niñ mujjee. musaa lu Xudar def mu laaj ba mu doon ñetti laaj Xudar na ko ñaari laaj Xudar na ko bu ñettee nañ tàggoo mu ñett ñu tàggoo. ok kon nit ki boo ko jiitalee. Mhm. am na looy mën a xam ci moom ak looy war a xam ci moom. Mhm. mais am na loo xam ne mënoo koo xam ci moom te waroo ko xam ci moom. Mhm. li tax président Macky Sall dugal Idrissa Seck kenn waru ko jéem a xam nañ am fi ñu yem. te lii leen Macky Sall génn gouvernement bi. d' abord génn ko jot na parce que yàgg nañ ci lool lool ni ñëpp. te du ñoom dong ñoo nekk APR mais aussi xamuñu lu mu leen ber lu mu leen réserver ëllëg xamuñu ko te itam loolu day wane ne mhm. jox la benn responsabilité nangu ko nga mer mhm. day wane ne wax dëgg yàlla mhm. yow am na foo teg nag euh, mbiram àddina dara ah, am na foo ko teg waaye bu fekkee ni da ngaa dépassé yooyu am transcendance yooyu yéegal la ci kaw wàcce la ci suuf benn lay doon du tee mën a liggéeyal nation bi émission bi neex na loolu mais wax bi dafa jeex tàkk ah. ñu bàyyi la rek nga tàggatoo Euh, ak ci émission bi xëy nañ euh, yoon yamul ci benn. waaw euh, dinañ ko gën a yaatalaat fii. incha allah ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw di gërëm ñi fii woote parce que dañoo yor jël seen xaalis woote. Mhm. te loolu coono la. Mhm. am ñu la interpellé ci affaire. ñaar ñu mujj ñi. Mhm. xam naa leen bu baax a baax a baax. maa ngi leen sant di leen gërëm ci dañoo dañoo dañoo dañoo nit liñ gis rek dañoo wax liñ gis. ku njëkk kii Abdoulahat dese naa ko miin parce que Abdoulahat yi xam nga dañoo xaw a bari lambay tuuti. Mhm. mais Abdoulahat loolu mu wax nii euh, ci problème lambay la bokk. Mhm. wax na dëgg. Mhm. Euh, problème mu ndox dañ ko am. ndax damaa ñëw fekk ndox mi ñu coupé courant bi ndox du am lambay. ma changé équipe bi non seulement coupé duñu. waaye am nañ ci kees gi set millions et demi El Hadj Fallou Seck wax na ko. ñuy toog bi ci ak sa aquatique ñëw bi aquatique ñëw jël affaire yi mënatu gis ndox moytu koo dégg paan bu fa am ma ma ma yegg bi sama sama poche ñëw kon wax na dëgg problème ndox lambay am na ko. Mhm. loolu nag maa ngi koy dugal ci cadre Aquatech en général dans le pays. parce que du ñu dong. Mhm. noo am problème boobu dañ ko am fii ba Touba. Mhm. dañu am problème mu ndox. kon Abdoul Ahad loolu ci li ñuy diis président la bokk. te nan nan nan nan teey rek ndax du ñu dong. problème Aquatech ñu ngi koy regle fan yii rek laa dem Ofor. Ofor jox ma benn délégation Aquatech jox ma benn délégation bëgg dem ça ne fait pas trois jours. ñu dem Lambaay ma partenaire yëpp ñu waxtaan ci problème boobu ba yaakaar nañ ne. aquatique dina ñëwaat. Mhm. liggéey ci anam yu yu yu sell yu yu jaar yoon. am na solo kon noo sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mhm. Euh, te yoon yëmul ci benn nu ko waxee. Mhm. mi FM moom sama sama télé la sama sama rajo la yàgg naa fi ñëw. depuis depuis la foire. am na solo euh, noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. tey tey tey wax. lu ma ñor. président na xam ne Sénégal ñoo ko fal. lu ko yoon may na ko jël. nit ñi ñu ngi ci ginnaawam. te di di di di ko joxal assurance. que de ba feek moom muy bàyyi politique. noonu mhm. dañuy laaj Lambaye te gëm naa ne bu ñu laaja Lambaye dañuy gañ a am na solo waaw. di ko sant di ko gërëm moom Cheikh Ndiaye nekk maire bu Lambaye nekkoon fi tam ex directeur bu euh, CICES e di leen sant di leen gërëm jox leen dig daje ba dimanche incha allah rabbi.